L'air du TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala al-mabousi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mbokki jurditi, darul birri wal irshad. Mingi wa ci bindam bi nga xam ni mooy wajaa ramadan ñu ngi ñëw tey ci ñaar fukkeelu bind bi xam ngeen ni bind bi ñu nekkoon mooy fadlul ashril awaaxir ngëneel yi nekk ci fukki fan yu mujj yi waaye tey ñu ngi ñëw ci kayfiyatu qiyaamil leyl ana nañ la ñuy defee qiyaamul leyl te mooy naafile yi ak euh, ngëneel yi kon ni nga xamante ni moom lañuy naafila ci diggu guddi muy salaatu tahajjud wala salaatu qiyaamil layl façon julli bi am na ñaar ñaar maanaam julli ñaari rakka sëlmal julliwaat ñaar sëlmal كم نكو يننت صلى الله عليه وسلم وخيني صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة واحدة توتر له ما قد صلى نانا جولي قدي نافلي قدي موي نيار سلمل نيار سلمل نانا سو كان تيين رغليني سو كونتيني وقتو يمنا دم بفجر دوغو kon na witre benn kon loolu daf ñuy wan ni julli guddi julli noflaay la waaye du julli coono du julli fitna du julli teg sa bopp benn benn ci ay jafe-jafe kon bu fekkee ni guddi la nga jóg seet bërëb boy jullee wala nga dem te jàkka ja ànd ak mbooloo mi dina la gën a may courage mën laa dëgëral nga julli fa li yàlla dogal nga mën koo julli ñaar ñaar nag booy julli ñaar sërmal julli ñaar sërmal mun na nekk waaye it mën na nekk nga julli ñeenti raka enchaîné taaye sëlmal julliwaat yeneen ñeenti raka enchaîné taaye sëlmal muy juróom-ñetti rakka nga teg chafa teg witr ñetteelu melokaan bi mën nga julli ñaar sëlmal julliwaat ñeenti sëlmal tegaat ñaar sëlmal loolu mun na nekk waaye nga yëg ni ak lum ci mënti doon julli gi jàng mi dafay dal ak lu mu néew néew rukoo ya day mat ak lu mu néew néew sujoot day mat ak lu néew néew mbokk yi julli guddi ngëneelu kese la day defar jullit day tabax jëmmam waaye day tabax ruuxam day jële nit ci caaxaanu àdduna ak i mboosóoram jëme ko ci jaamu borom bi ak dëgër ci kon lolé amna ngeenel gu maga maga mag wala ay ngeenel yu maga maga mag ndax kat yàlla subhanahu wa taala ne wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala ardi hawna wa idha xaatabahum aljahiluuna qalu salama lumu ca tek moy walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama borom bi ne na sama jaam ñi ma gërëm ne mooy ñuy dox ci kaw suuf di dox ndànk-ndànk su saay-saay waxeek ñoom bëgg leen dévier yóbbu leen ci xuloo ak saaga lu ñaaw ñu ne ko ñun jàmm kese lañu woote waaye nee na jaamu yàlla dëgg mooy ñiy fanaan guddi di sujjóot di jooy ngir bëgg borom bi gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam da don qiyamul layl ba lenn ci wa kërëm di ko ci fekk yenn ci sahaba yi di ko def bu seeni tànk newi nga xam ne guddi gi yépp dañ koy julli duñ ko xaaj borom benn yonent bi inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min sulusay layl wa nisfahu wa sulusa wa ta'ifatun min alladina maak والله يقدر الليل والنهار كون بروم بي موي تول لي غودي اك بتيك كون يوم بوكم جوليت جافا جافا نيم بري فتنه نيم بري فخه دي جولي دي سجود دي جيغي سا بروم تي موي وسجود وق تاريب nga yeg ni nak julli nafi la so mene taxaw nga taxaw so munul nga tok bo amé 16 wala fauteuil wala boo taxawee tuuti jógaat loolu boo ci mën a def rek incha allah islaam bañut ko ndax yonent bi léeg-léeg daana naafila ci kaw daabaam kon yow boo defee lu mel noonu defoo benn bàkkaar mbokk yi kayfiyat qiyaamu layl gis nañ ko waaye julli guddi xam ngeen ni tuyaaba kese moo ci nekk ndax day yëkkati nit jëlee ko ci suuf jëmee ko ci kaw jox ko considération bu mat sëkk dundal ruham dundal yaramam dundal xelam dundal khalatam ndax loolu subhanahu wa taala moom moo la ci dimbale ginnaaw ba nga taxawee di julli guddi ki yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa ne afdalu siyaami baada ramadan shahrullahi almuharram wa afdalu salaati baada alfarida salaatu leyl yonent bi koor yi gën ci koor yi ginnaaw weeru koor ne julli googu de mooy koor googu mooy woor ci weeru muharram waaye gën ji julli yi ci julli yi ñuy julli bu budul farata nee taxaw guddi gi di qiyaam moom moo gën ci lii nit kiy def yonent bi sallallahu alayhi wa dafa daan qiyaamu layl da ci daan taxaw da ci daan woo njabootam góor ak jigéen ñoom ñépp la ci doon boole su ko doon waajal su noppaloo guddi gi bay jóg day jël soccam socc bu baax ba gémmiñ gi set làmmiñ bi set mu daldi jàpp su jàppoom ba jàppam pare mu julli ñaari rakkaa muy ñaari rakkaay njàpp ginnaaw ga nag mu doog a dugg nag ci biir julli ga waaye mbokk yi xam ngeen ni julli guddi ak naafila yi buntu ñaan la ndax mën nañ cee xunóot mën nañ cee ñaan suñuy soxla lu ñu gën a jege suñu boroom suñu boroom gën ñoo jege kon mbokk yi loolu di war a tàmbale mardi képp kuy boroom kër te mën ko jéem ko ku mën sa njaboot di ko def nañ ko jéem wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain